sayqa umul yi ñoom ñëpp ñu lu jotaay bi eh, ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla yàlla boole yiw bi gannaaw bu ñu leen présenté suñu mbokk yu baax yi kon ni ñu def kat jox kàddu gi oustaz Mor mu nuyoo ñu jox kàddu gi oustaz Mouhamad ñu nuyoo ñu tàbbi ci jotaay bi kon oustaz Mor bisimilah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihi llahu fala mudilla lah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 di nuyu tamit mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñoom ñuy seetaan di feddali li nga xamante ni al ustaas wax na ko ne jataay bi jataay yiw la insha allah ay mbokk jullit yoo xam ne dañoo toog daje di jàngat benn tomb ci tombi lislaam fas yéene cee jëriñante jëriñ ci tamit seen i mbokki jullit di feddali li nga xam ne al imaamu radiallahu daan na ko wax لأن ما ناظرت أحدا إلا وددت أن الحق ظهر من لسانه فقيل له في ذلك قال إن ظهر من لسانه علمته ولم أرى نفسي وإن ظهر من لساني أخشيت أن أرى نفسي الإمام الشافعي دفدون وحنان دق سنتو ما كان وقتان ما كان تشيب مسألة تدينه لدول نبيبتنا دق فين تلامينم ñuna ko lutax lolu mo na ndax bu deug feñe ci lamiñam lolu mo doon jublu way ba ma dal di koy ndax du ma gis sam bopp mooy ne du ma daal di kañu di tagg sam bopp ci kawam di yëkkati ko ci kawam ne yey naa ko bu fekkente ni nag feeñ na sama làmmiñ damay ragal a gis sam bopp loolu laay feddale ci jotaay bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala li ñu fi wax mu def ko ngir jëmmam bi subhanahu wa taala jërëñ ñu ci jërëñ ci julliti wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah euh, kon ñu jox kàddu gi oustaz Mouhamed Sarr mu nuyu bokk yi oustaz bismillah euh, aoudu billahi min a arrajim bismillahi arrahmani بسم الله لما نفعل والحمد لله لما فعل لنا إنه لمن دواعي الغبة والحبور أن أستهل براعة سلام حمل شوق بيانه وتنشقت ما نشقت ناشقة عرف الوداد كفالته لأفوها ببنت شفه فيه روح وريحان لجميع المسلمين ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ديني nuyu بدي ديني ويتم سنو tey di مركبه di nuyu itam ñu ñu seetaan ñëpp di ñaan yàlla defal ñu tawfiq ci liggéey bi ñu bëgg a def asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf kon gannaaw bu ñu bokkee déglu suñu ñaari mbokk yu baax yi ci nuyoo yu sell yi nga xam ne yëkkati nañ ko teg ko ci suñuy loxo ñu teg ko ci loxo yi ñu jàkkaarloog ñun eh, ñoo ngi ñaan yàlla yàlla leeral làmmiñ yi te lépp di yàlla kese eh, mais am na lu ma bëggoon leeral tuuti ndax damay ragal ñu dem ba ci biir nit li ma ko laaj. Mm-hmm. Eh, bi ñuy def jotaay bi passé woon dama waxoon oustaz Mahmoud Sow na ko invité na la pour bu ñuy def ruhiyatu nabi yalla dogal kon bu ñuy def ruhiyatu nabi gisuñ ko balañ bala ko nita laaj mo wax lay ngantali li bu laa ci jublu mhm. oustaz ma mo joxe ngantal bopam parce que nana ko min jani bil waid le bëgg me bëgg ko jangat toga ko xamne dañuy wute loolu moy ngantam mo wax ko mu lay pour ñu xamne eh, def naa sama effort yëpp mhm. tay. Eh, gëna bu loolu passé moy oustaz mo ñoo ngi ñew ci tombe waxtaan bo xamne bind ka di bind nañ ci di wax kan ni wute am na ci ci diggante borom xam-xam yi surtout al madrasa salafiya ak ni ñuy tuddee asufiya ñu bëggoon xam li ñuy tuddee ruhiyatu nabi moo xam ci nelaw la moo xam ci gis la e, nan nga ko jàngate ak lan nga ci mën a wax pour loo xam ne dañ ko mën a jàpp bismillah walhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala e, ruyatu nabi sallallahu alayhi wa sallam te mooy gis yonante bi alayhi salaatu wasalaam moo xam ci nelaw la wala yaqadatan muy gis ko jahran ginnaaw bi nga xamante ni faatu na li ciy aslu li ciy cosaan mooy wax joo xam ne yonente ti alayhi salatu wasalaam wax na ko ne man raani fi lmanaam faqad raani fa inna cheytaana la yatamathalu bi xadis bi yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne képp ku ma gis ci nelaw képp ku ma gis ci gént gis na ma mu ne ku ma gis delloo damir bi ci boppam muy kon jëmmam la ci nam mooy ku ko gis moom xaqiqatan mu leer ni moom nga gis gisoo keneen foog ko ko euh, mu ne man nga gis ndax seytaane du jël sama jëmm laa yatamathalu la wax ci xadis bu nekk ci saxiix muslim mu ne laa yatamathalu fii suurati du jël sama jëmm mënumaa toppandoo kon loolu muy firndeel mooy bu fekkente ni nit ki leer ko leer na ko ne gis na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay melokaanam yi mu melowoo comme ni nga xamante ni ki nga xam ne mooy abdullah ibn abbas daan na def bu nit musaana ñëw ne ko gis naa yonente bi alayhi salatu wasalam ci gént mu sifhu lii melal ma ko bu ko melalee ak lu mu xamoon ci yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne faqad raaytahu mu ne ko gis nga ko bu fekkee daf ko melal mu waroo ak li mu ci yonente bi alayhi salatu wasalam mu nga gis lu moom Muhammad ibn Sirin di imaamul muabbirin Muhammad ibn Sirin di taabi'i bu mag bu jàngee ci saxaaba yi doon doon ku ku màccoon ak ku ñu xamoon ci tekki gént moom itam daan na def bu ko nit musaan dikk ne ko gis naa ko mu ne wax ma nu mu noo ko gisee hmm. boo ko ko waxee mu dëppook melokaanu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne gis nga ko bu dëppoowul ak mu mun a gisuloo ko hmm. kon loolu moo ciy cosaan hmm. xadis boobu li ko solo ci ay saxaaba yoo xamante ni jële nañ ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñu bëri lañ ñoo xamante ni boo xoolee seen lim lu takku la ngir mu gën a yomb ko tënk ci li ñuy tuddee shajaratul isnaad mooy bu fekkee da ngay jàngat ab xadis mën nga koo jël mel na kuy dessiner arbre comme ni koy defee ci wàllu euh, nit ki bu fekkee dafay bind ci wàllu li nga xamante ni mooy euh, delluwaayam muy bind ay maamam mën na leen jël tracé leen comme arbre généalogique xadis bi nga xamante ni bi moom moo ci ñëw ci gis yonent ba alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi soloo ko jëlee ko ci moom di tolloog fukk ak ñaar ci ay saxaaba di ànd la yonent bi yépp yëpp génnul ci ku ma gis gis nga ma dëgg-dëgg man nga gis hmm. borom xam-xam yi tekkee ko ci ne bu fekkente ni kon nit ki leer na ko ne ki mu gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam la kon gis na ko ndax seytaane mënut a jël jëmmam hmm. ndax loolu lay tekki hmm. des na ci dégg itam ne ko ndakate seytaane dina feeñu nit ne ko man la yonent bi te du moom na ko ci déggee ci wax ji nga wax ne feeñu seytaane laa yatamathalu bii kon mooy lii tax seytaane bañ a àgg yow foofu mooy nga xam ko bu njëkkoon ndax seytaane sëgam yàlla lay ñëw di la feeñu ci nelaw ne la man la sa borom te du moom kon yonent bi waxi noppi mhm. ni mu siwee ci xisatu euh, aljeylaani mhm. rahimahullah xadis boobu génnul maanaa boobu ci niñ ko solo jële ko ci lu mat fukki saxaaba ak ñaar mhm. ñu jële ko ci kenn kuy abu hurayra radiallahu anhu abu hurayra juróomi nit jële ko ci moom kenn ki di abdu abu salama ibn abdurahman di ci gënoon taqoog abu hurayra daan jànge ci moom xadis ak Abu Salih muy Zakwan Assamaan ak Mouhamad ibni Sirin ak uh, Abu Ala Abdurahman Aljuhani doomam moo ko jëlee ci moom di Ala ibni Abdurahman jëlee ko ci baayam baayam jëlee ko ci Abu Hurayra ak Kulayb Kulayb tamit doomam moo ko jëlee ci moom muy Asim ibni Kulayb juróom ñooñu ñëpp dañ ko jëlee ci Abu Hurayra ñoom ñeent ñëpp li ñu wax génnul ku ma gis ci nelaw gis nga ma kenn ci ñoom kii di Abu Salama moo ko nettali jëlee ko ci Abu Hurayra ñaar jëlee ko ci moom kenn ki di Muhammad ibn Amr ibn Alqama Muhammad ibn Amr ibn Alqama bi ñu ko nettalee daf ko nettali ne man raani fil manaam faqad raa alxaq daf ko nettalee ne képp ku ma gis ci nelaw gis na dëgg gis na ma la mu gis du ay fen man la gis Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri jële ko ci Abu Salama ibn Abdurahman am ñeneen ñett ñu ko jële ci az-Zuhri Zuhri doon fóore bu mag bu daan nettali xadis Zuhri ñi ko jële ci moom di ibnu axiihi di Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim ibn Shihab jële ko ci zuhri yi daal di koy nettali ci façon boo xam da caa sikki sàkka daf ne nee na ku ma gis ci nelaw dina ma gis wala mel na ni gis na ma man raani fi lmanaam fa sa yaraani fi lyaqada aw fa ka annama yaraani ku ma gis ci nelaw dina ma gis jahran wala mel na ni gis na ma jahran ci sikki sàkk xikaayatu Muhammad euh, ibnu Muslim ibnu Shihab az ki ko jëlee ci moom di ibnu axiihi di muhammad ibn abdillah moo ko jëlee ci zuhri ci sikki sàkk di ci sikki sàkk mu nekk riwaaya boo xam mi ngi ci hmm. uh, musnad al imam ahmad keneen ko ci topp di salaama ibn aqil hmm. jële ko ba léegi moom ci si zuhri moom tamit ci sikki sàkk hmm. comme na ko muhammad ibn abdillah nettalee keneen ki ko jëlewaat ci zuhri ba léegi di ñetteel bi mooy yunus ibnu yazid al ayli yunus ibnu yazid al ayli moom tamit ñett ko jële ci moom ñoom ñett tamit ñaar ñëpp dañoo sikki sàkk wala boo kenn ki dafa sikki sàkka muy Abdullah ibn Wahb al Qurashi kenn ki ci des di Anas ibn Ayad moom def ne man raani fi lmanaam faqad raa alxaq xadis boobu ibn Hibbaan ko solo kenn ci ñoom di Abdullah ibn Mubarak moo ko solo jëlee ko ci Yunus ibn Yazid ne man raani fi lmanaam fa sa yaraani fi kenn kooku mooy boo ko toppee ca saxaaba yi ko jëlee ci yonent bi jëlee ko ci Abu Hurayra di wàcc kenn par kenn foofu ngay gisee koo xam ne moo wax ne ku ma gis ci nelaw dina ma gis loolu boo ko dee jàngat ci xam-xamu xadis loolu lañ tuddee al xadisu mooy xadis boo xam ne ki ko riwaaya ku ñu waaye nangu xadisam la ndax ku wér la ci xadis waaye daf koo soloo ci anam boo xam ne daa waroog li ñëpp wax mooy achaaz ci musalahul xadis mooy maa rawaahu thiqa muxaalifan li man huwa awla minhu mooy loo xamante ni ki ko soloo ku wér la ci xadis waaye daa waroog li ñëpp wax lu mel ne alimaam Malik bi mu soloo jëlee ci zuhri ndax danaan jël jànge ci zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri doon fóore bu mag bu nekkoon Madina ak Sham xadiisu al mooy xadiis bi nga xam ni dañuy wax ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam musaan julli ñaar rakkay fajar bu pare day soonu tuuti noppalu ci wetu ndeyjooram imaam Malik nettali ko ne danaan soonu tuuti laata muy julli fajar ñu jàngee ci zuhri ñëpp nettali ne danaan soonu la bu jullee fajar ba noppi ñu ne kon alimaam moo juum ndax ñëpp mënuñu wax lii moom mu ñëw wax lii lu ne dafa juum ndax nit lu mu wóor wóor wóor wóor ci xam-xam léeg-léeg dina am lu juum te njuumteem ci xadis bokk na ci liñ koy xamee mu wax loo xam ne dafa waroog li ñëpp wax ñu ne kon xadis bi chaaz la hmm. donte mi ngi ci saxiixul Buxaari ndax al Buxaari day génne loo xamante ni moom la ñëpp wax génne ak chaaz pour wan na la lii riwaaya boo xam ne chaaz la hmm. xëy loolu mën a situé solo loolu <coughs> ñeneen ñi ko solo di jaabir ibn abdillah abu qataada abu saidin alxudri anas ibn malik abu saidin alxudri ba léegi abdullah ibn abbas abdullah ibn masud abu juhayfa muy fukki saxaaba ak benn yoo xam ne kenn ci ñoom solowu ko ci ne ku ma gis ci nelaw dina ma gis amul kenn ku ko ci solo ci anam boobu waaye terewul ne borom xam-xam yi jàngat di gëstu ci wàllu xadis bi ak tegtaloom wax nañ ne bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ku ma gis ci nelaw di ma gis jaaratan mënees na koo jàngat xool ko ndax dina ma gis boobu ku mel ne an nawawi da cee jël ay wax yoo xam nettali na ko jële ko ci borom xam-xam yi alxaafis ibn xajar di ko nettali ci fatxul yi mu ne dina ma gis tekkee nañ ko ne dina ma gis mooy dina ma gis ci sama dund laata may faatu ndax ci occasion boobu la ko mën a gisee laata muy faatu moom sallallahu alayhi wa sallam mu koy bëggalee ñi nga xamante ne ci jamono jooju tuub nañ dugg ci lislaam te jàppandiwul woon ci ñoom ñu tuub ñëw ñu ñu hijra ñëw ma madina gis ko mu ne kenn ku yàlla baaxee ci ñoom nga gént ma gis ma di nga ma gis balaa ngaa faatu di nga yàlla dina la defal tawfiq nga ñëw madina gis ma te nanga ma gisee woon ci neraw boo ma gisee di nga xam ne man nga loolu nekk wax joo xam ne wax ju dëgër la fa sa yaraani mooy dangay gis ne siin boobu bu ñu ko dogaree ci al fi'l mudaari lil mustaqbal dina ma gis ndax am na lu koy tënk ci dundu yonant bi wala dañuy wax ne même ginnaaw dundu yonent bi alayhi salaatu wasallam loolu c'est valable mooy ne ba léegi dina ko gis bu fekkee gént na ko mais loolu problème day daal di am boo ko yóbbuwoo yowmal xiyaam mën na nekk ku ko gis ci àdduna yàlla baaxee la nga gént ko te ne moom nga gént loolu foog ñu insister ci tuuti yowmal xiyaam yàlla dina la baaxee nga gis ko يلا ترى ليلا لولو غدا جاك موم صلى الله عليه وسلم مي جنا بو مفاتو فاتو دي بن بيندون تي موم حقا فاتونا صلى الله عليه وسلم يلا نكون انك ميت وانهم لميت انهم ميتون يلا سبحانه وتعالى وقلنا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فسيضر الله شيئا وسيزيد الله الشاكرين يلا سبحانه وتعالى بندتي فاتو moom sallallahu alayhi wa sallam mu faatu Omar ibn al-Khattab bot ci jaaseem taw ci jàkk ji ne képp ku wax ne Muhammad faatu na dinaa dog boppam ak baatam dafa dem ci digge boromam comme ni ko Moussa defee woon loolu benn sew-sew am fi sew-sew bi fi am mooy ñenn ñi dañuy sukkandiku ci baax yàlla di defal yonent yi jiitu woon ak yeneen ngir dëggal ne des na mën a gis yonent bi alayhi salaam ginnaaw faatum ndax loolu lu mën a nekk la ñu ne problème bi du ndax lu mën a nekk la mais li problème mooy ndax nekk ndax nekk loolu mooy coow li mais lu mën a nekk moom yàlla moom kàttanam ak mën-mënam dara génn ko waaye nga saxal ci lislaam ci alquran ak sunna luy wane ne loolu lu mën a nekk la ndax ñaar yooyu ci lañuy ñuy dellu jërëjëf oustaz danaa del si xat ci yow euh, mais suñ la dégg yi mooy mel na ni euh, addis bi nga xam ne ñuy wax ci gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci naw man wayax sa mel na ni benn addis bi lañuy ñuy tegtaloo Eh, wan nga ñu nag calal ak addis bi ci fukki nit ak ñaar ci ay saxaaba yoo xam ne solo nañ ko eh, duñ del si at ci ni nga ko waxee mais fi nga xam ne mooy waj umu shaaka la wala nga xam ne fi la sikk bi ñëwee mm-hmm. demee ba ca fasa yaraani ja foofa mel na ni fa la mbir mi ñëwee am ñoo xam ne firee nañ ko nii ñii firee ko nii ba mu indi mel ni kon yonent bi nit mën na koo gis gannaaw boo xamee nag génn na àddina yàq satan loolu it nga indi ci ay lay yoo xam ne am nañu ko teg wane ne ba muy wax loola mooy ñi nga xam ne duggoon nañ ci lislaam te fekk mu gàddaay ñoo la doon wax ne da ngeen ko gisaat danañ am sens su gis ko mais tekkiwul ne gannaaw bu mu béyee dinañ ko gis tey euh, oustaz Mouhamed Sarr dañ lay delloo même laaj bi yéntu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xilaaf am na ci borom xam-xam yi gannaaw bu mu génnee àddina E ñu tegtaloo ne danañ ko gis ci nelaw danañ ko gis ci yax satan ñu bëggoon a laaj yow lan lan nga ciy tegtaloo ci gis gi ci nelaw ak yax satan euh, sas bi tey ginnaaw bu ñu la nuyoo sant yàlla bu baax euh, dafay jaadu rek bala ñuy dugg ci xadis bi sax ba indi silsila bi ak ñu ko solo ak chose suñ ci tudd donte daan ñëw ci chage bi hmm. bu ñu amee ittifaax rek ne xadis bi am euh, ñëw na ci saxiixay ni wér na rek li ci des mu soog a dugg ci te wilaay ji mais avant ñu yegg si xadis bi li ñu war a lu tax kenn mënut a gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire fan la yonante bi waxee ni kenn dootuma gis benn euh, point ci des tam dafa bokk ci nit nekk jullit fokk mu gëm xayb alif lam mim dalika al kitaabu laa rayba fii hudan lil muttaqin alladina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaat te xayb mooy lépp loo xam ni fàddu na ci sa xam-xam rek yow dafay bu la ci yokk euh, li tax ma wax loolu euh, dafa am lu ñu tuddee alxawaasul xam sa cest à nit ci juróom la yéege ci bët xool wala nopp dégg wala loxo làmp daj wala nga nga fënd wala nga mos ñi def physique kimia ñëpp nangu nañ ni xel su juróom yi rëccee rek bu ko juróom yi rëccee rek problème commencé na ko am parce que nan lay def ba mën a yëg foofu la affaire bi tàmbalee su ko defee ruuyatu nag yi ñun amuñu ci problème cest à dañ koy dund ak ñu koy gis et puis am ci yaqin mais mu des na bu ñu toogee ci jataay bi ñett lañ ci wax boo bëgg a waxtaane mooy xabar ibtidaaiya c'est-à-dire euh, ñuy déglu te am nekk xaalis zihan ñu ubbi seen bopp pour wax ni li see di mën a. Euh, benn xaw say ni bëggoon naa ngay sóoraale ñi ñuy déglu. waaw incha allah ci langue arabe bi ndax am na ci yoo xam ne ñu jàng arab rek a koy xam. incha allah ñëw maanaam ñett la ñu waxal. Mm. ki nga xam ni amul benn xam-xam ci ni ñu bëgg a wax. Mm-hmm. kooku du soxla ñu koy indil ay lay yu bari. Mm. ak ki nga xam ne mutaraddit la maanaam ni ngi dengi dengi est ce que gaañ yi li ñuy werante dëgg la wala bu dëgg hmm. kooku daañu ko indil ay addil la hmm. te addil yi indi tam ci alxuraan la sukkandiku hmm. bala ñuy yegsi ci xadis bi ñu dañuy indi ay quraan ya maanaam yuy saa sam bu mën a nekk la waaw incha allahu rabbi te itam ci biir saxal googu daañu saxal Cheikh Ibnu Taymiyya ci boppam wax na ni gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te daañu wax référence yi indi fi mu nekk pour mu leer euh, bu ñetteel bi mooy euh, mutaraddit c'est-à-dire mu nekk mooy munkir ki nga xam ne nag li ñu wax ñun gëm a jóg maanaam euh, man nag sëñ Mor maanaam tooguma pour convaincre sëñ Mor mais ñi may seetaan pour ñu xam ne salaasal gis ko c'est valable bi ci des tam tariix si Cheikh Tidiane bi ñu nekk si Cheikh Tidiane mu sax ne yonent bi daf ko jox tariixa bi yàq zotan laa mën a aman c'est-à-dire mu pour pour ñu loolu sax mooy suñu objectif ñëw fi jataay bi euh, pour mu leer su ko defee oustaz euh, nit du dee c'est-à-dire problème bi mooy yëpp nit ñi dañoo foog ne li tax mënuñoo gis yonent parce que dee na c'est-à-dire baat boobu li ma gën a ragal ci la bokk parce que salaa salaam yonte bi nit du dee c'est-à-dire jël naa sax yonte bi mais même nit simple du dee hmm. te loolu dafa ñëw ci téere yi même euh, euh, Ibnu Qayyim al Jawzi dafa ko jàngale ci ar-ruux hmm. bon pourquoi nit du dee c'est-à-dire xam nga baatu dee yàlla alxuraan aayaat yi ñu tudd dee yëpp da ciy toftal dund bu fekkee jàng alxuraan parce que en fait problème dégg alxuraan la du problème mu xadis euh, bi ndax non c'est-à-dire mag ñi gis ci yàqee lañ ko téye Euh, euh, bu ñu demee oustaz xool innaka mayitun wa innahum mayitun xam nga aay ji euh, toujours lu yegg summa innakum yawmal qiyaamati ànda rabbikum taxtasimuuna xam nga bëggoon naa laaj oustaz Mor summa innakum ci damirukum jooju ndax ci yonante bi la dellu ak ñi mu ko ne daañ dee wala delluwul ci ñooñu aywa sallallahu alayhi wa sallam aayaat ñoo ne ni ni yonante yu njëkk yi gaañoo la gaayoon parce que mbugalu bàmmeel pour nit di ko yëg c'est-à-dire fokk ku lu nafsin daa yàqatu mawt c'est-à-dire ak mos la cest diggante sa ndaw la nit di mos dee mais mos boobu day détaché wu moo tax si Ibn Qayyim al-Jawzi wax ni ruux juróomi taalluq yu am ay yaram bu ñu waxee taalluq mooy téyanti bu nit ki nekkee ci liiru yaayam ruux bi dafa am nu mu koy téye kooku ak dund la bu nit ki génnee ci biiru yaayam kooku ak dund la bu nit ki dox ruux gi ni ñu ànd moom kooku dund la سودي روح أمنا بني عندهم كوكي دم أقدون الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها كوكو تبي تبي دنيا مودس دلو بخنا مم لو خيال لي دلو بقول كده ولا تبي بير بانجر بس يفر صح يفر بتأكل دارا يلا دون يلا دون كده عندي نجار القرآن يلا جمعنا كده كده في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديث خلنا كون دونك فوق من لدي اندبار لم يسكن الدنيا دي والبي بوجي سيتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة هذه ديلو تبتكي دون نغا ديلو تي سورة البقرة يا الله خني كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ديلو سي دون نغا ديم سورة الروم الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم بوين يوي ييب مانام دوندو رك لا ني مانام لا ني ساخال ني نيت دو su ko defee wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaun inda rabbihim yarzuqun nga gis ne delloo si waat na dund gi mais problème mooy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy kan xam nga ki nga xam ne ba aadama parce que boo demee ci al-Mustadrak al-Hakim laaj nañu leen di mata kunta nabiyyan man kuntu nabiyyan wa aadamu bayna al-maa'i wa tiin nga xam ne kooka léegi kan nekkoon ci jamono maam aadama nga xam ne nit amagul c'est-à-dire ci jamono booba Muhammad boobu pourquoi sallallahu alayhi wa sallam نخي ماك بس بمن عليه ماك مطلوب مدير لكم توك أب جمانو جن أبنا ينو كوك أب مدير فوفلن ديان بوعيم تروح لنيني ده بول مرة قبل على المعاري ده هو هنا خلي خل الناس للبقاي فبلت أمتهم يحسبونهم للنفادي إنما يقالون من دار أعمال إلى دار شقوة أو الرشاد حكم المرية في البرية جاري حسن تهامي ما هذه الدنيا بدار قرار وخني فلا عيش نوم wal maniyatu yaqzatun wal maru baynahuma xayaalun saari c'est-à-dire fokk ñu départ xam ne salaa sallam deewul bu ñu bu ñu nangoo ni deewul ci ayaat yi ñu wax ba pare ñu soog a laaj tax comme deewul pourquoi kenn mënut a gis yonent bi saa sallam te xadis bi ñu indi ak aaya bi ñuy indi maanaam euh, euh, bushra bi bi ñu dëkk jullit mooy la xam nga euh, boo delloo ci xadisu xadib ngi ci ñëw maanaam ñi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ñu naan reyee mais sànni ci xali bi yonent bi di aw ci seen tur kenn ka par kenn di leen tudd daañu ci ñëw ci xadis bi ci détail bu gën a yaatu incha allah Seydina Omar ni ko sallallahu alayhi wa sallam ndax da ngay wax ak ay nit ñu dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko Omar walladi nafsi bi yadihi maa ngi giñ ci yàlla mi xam ne sama bakkan bi ci loxoom la ne yéen man ñi may wax ak ñoom yéen ñi gënu leen dégg ñoom ñii ñi may waxal ci biir ci biir kàmm donc. sallallahu alayhi wa sallam mu des nag gis yonent bi ci ay may la c'est-à-dire may yi mooy lan mooy nit ki xijaa yi ma doon junju alxawaasul xamsa lu romb nit réer na ko mu des nag léegi nit ki est-ce que war naa weddi lu mu gisul parce que problème yi ñu am mooy eh, suñu cheikh yaam bi dañuy xëy suba ni tey suba ndékki naa man am na saar ma ñu ne ko noonu ndékkiwoo parce que waxu ni ndékkiwoo te bi ci amul fenn fu mu mën a indee yonent bi ni xam nga yonent bi ñaan dina dem après indi ni xad xale bi xaddu c'est-à-dire indiwul ñu fenn ne lu dellu si te yonent a Aysa dañ dellu si bu ñëwee ci biir rek dana dellu si Muhammad sallallahu alayhi wa bi ñu ko tëjee di ko xasar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam section boo demee ci tàmbali xale ak te ay xadis la yu wér bu ci àllaan daan ci yegsi hmm. ndax euh, euh, entrée en matière laa bëgg a def ba ñu xam maanaam mën xëjee bi ñu dugg ba pare ban la tëb tëb duñ tëb tëb rek ni nit yonent bi kenn mënu ko gis parce que ñun euh, yàqin am ci ni mën gis yonent sallallahu alayhi du du jeex ñoom Ibnu Qayyim ñu ma juñ donc problème bi marxala bu njëkk mooy fokk ñu gëm ni itam inna allaha ala kulli chein xadir aay jooju du fi jóg bon te aay ji ma doon di lahul bushra fi lxayaati dunia xam nga yonent bi salallahu alayhi wa sallam xam nga man raani fil manaam bu ñu boole woon ci man raani ji doon sax ñun suñu xadee day réglé wu parce que boo dellu ci surtout Yusuf ñaar ñi taxoon yonent bi sallallahu alayhi yow yonent yàlla yusuf génn ca kaso ba ak gént lañ ñett lu yonent yàlla yusuf gént ga ñett lu yonent yàlla yusuf xëy suba yusuf firi leen ko mais gént ga xëy suba réalisé wu ñu teg ci seen bët nga dellu ci buur bi du jullit mu gént juróom-ñaari nag ñu xëy suba géntam gëm gént réalisé wu ñu teg ci bët firaaw na li muy bon bon bon mu gént ni kiy folle nguuram yi xale bu judd la mu laajte xëy suba la mu géntoon xëy réaliser am yonent bi sallallahu sa wasallam wax ni géntu nit ku baax juz'un min sittin wa arbaina c'est-à-dire bu jëloon nubuwa daggate ko ba mat 46 benn bi bu fekkee nit ku yóbbu géntam noonu lay mel léegi ñun suñu problème mooy pourquoi ñee gént te duñu maanaam duñu amuñu valeur seen xima yàlla te lañ gént ñu xëy suba teg ci bët ñun ñu ne mënoo gént yonent bi saa sallam xëy suba gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bu ñu yegsee ci biir euh, ñi gis yonent bi saa sallam xam nga ci weeru koor lay wax ni benn nit bu ko gisee te fekk na am ah, fekk fa kuy def ittihaad pour gis weer wi weer wi day sax su fekkee ñaar ñu maandoo nag kañ la ñuy soxla ñaar ñu maandu ji mooy bu fekkee am na fa kenn kuy góorgóorlu pour gis weer wi su fekkee ne am na fa kenn kuy gis góorgóorlu pour gis weer yi am fa ñaar ñu maandu yoo gis weer yi kon weer wi day sax donte téeméeri junni nit taxaw nañ wet dina gis weer wi feeñul donc itam ñun yàq ni ñu am ci ni ñeenti téeméeri wàll yu téere bi ñu tuddee mu'jamu man ra'a fi nawmi wala yaqaza mi ngi ni sunna hmm. ci biir sax Cheikh Ibn Taymiyya mi ci biir ñeenti téeméeri wàll yu ak ñeent fukk ak ñaar yoo xam ne gis nañ yoon saa seen adresse ak yaqazatan laa mën a man yaqaza yaqaza maanaam gis yonente bi salallahu alayhi wa sallam nii nga xam ne eh, kii dañuy gis ni salallahu alayhi wa sallam lañ gis hmm. te eh, bala may tudd sax ma ñi ma xam ci senegal parce que ci téere bi eh, oustaz Ahmad ndax mën naa la laaj foofu bay na xaw say ni par rapport ak oustaz Mor bi muy wax léegi hmm. wane na ne danay am ñu ko woote wo ne gis nañ ko hmm. te fekk seytaane leen feeñ waaw loolu pour tontu ci xam nga dafa yomb parce que dafa wax ni ñi mu tudd ñëpp ni dañuy sallallahu alayhi wa sallam hmm. nee na soo ma gisee mën nga gis hmm. parce que dafa delloo zamir ci boppam hmm. parce que seytaane mënu maa nuru mais kon ki gént gis yonte bi te fekk ne gisul maanaam ni mu tuddee gis yonte bi sóora boo feeñul kon day mel ni dafa weddi li yonte parce que yonte bi nee na ku ma ku ma gént mën nga gént c'est-à-dire du ñëw ci wetu yonte bi eh, maanaam bu bu boobu bu bu yonte bi naan la man maay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cest à boo di ci ci ci wax bu dégg bu gàtt rek mooy ni kon mu mënoo gis leneen leneen lu dul bi c'est-à-dire moom tabaarakàlla sax maa ngi koy gërëm manam xadis bi ma soxla moom nga ko indil yéen it dafa wax ne ku ma gént nga gént parce que seytaane du ma nuru kon mënoo gént yéen tamit ba pare ñu naan nga gént c'est-à-dire loolu àqal ah, xel nangu ko maa wax yéen bi sa sa bi sa dafay dax su fekkee ne kon yéen mën ko gént pare fekk seytaane ko nuru kon yéen bi li mu waxoon ne euh, ku man gént kon wax ju day dàq parce que léegi mën mën nga ko gént ba pare fekk géntoo ko nga ne oustaz waxee léegi su ko defee bu ñaar bi kelay laaj ndax nga woon ko sifa sallallahu alayhi wa ñu ñu gis yonent jamono ñooñu c'est-à-dire damay damay wax ni euh, ñoo ñëpp buñ bindoon ni yonent bi kenn mënu ko gis c'est-à-dire ñun yaqin lañ am ci ni sallallahu alayhi koy gis kooku moom euh, te te bu ñu bu bu jëlee ñu dugg ci ay alquran yi yu wane ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn mënta wax ni amul fenn man dinaa ñaan oustaz laaj quoi ba xam fan la yonent bi waxee sallallahu alayhi wasallam ni kenn mënu maa gis yàq satan c'est-à-dire jërëjëf mu junj moo ma fi jógee kenn dootuma gisati yàq satan parce que dafay euh, comme al musibit muqaddamun ala al manfi moom nañu leeral rek ci benn bu gàtt rek fan la sallallahu alayhi wasallam waxee wala alquran wax ne kenn mënut a gisati yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi jógee yàq satan tey jërëjëf Eh, kon oustaz Mouhamed Sarr bu ñu la dégloo ci sa commencement waxtaan mel na ni junjël nga ne problème bi fi mu posé wu mooy ñu bëri dañoo jàpp ni nit day dee mais nit du dee mhm. kon yow firndeel nga ne nit du dee mhm. benn ñaareel ba mooy surtout yonent bi Eh, amul fenn foo xam ne firndewu ne ne du dellu si ak ci biir alquran bu fekkee dégg naa sa kàddu mm-hmm. bon nga wane ne léegi yenantu boobu eh, tegtal yi ñuy tegtaloo ci aaya alquran surtout innaka mayitum jooju aaya bi bu ñu koy tegtaloo duñ ko di jàng mu yegg pour ñu mën a rabtu maanaam waa beneen bi ci des mooy bu fekkee dégg naa la mooy tudd nga Ibnul Qayyimul Jawzi mhm. ci baraa'il yim jàngatee ruu doomu aadama mhm. ba mel ni pour bëgg caa saxalee ne kon nit du dee ci comme ça di nga ko doon waxee mhm. euh, ci mujj gi nga wax ci ne euh, liy tegtal ci ne yonent bi des na ko gis kooku moom doonul looy werante yàqin nga ci am wane ne am na téere bu indi ne am na ñeenti téeméeri awliyaawu laay yoo xam ne gis nañ yonent bi yaxzatan mel na ne ñeenti téeméeri ibnu tay ibnu ca la bokk tey oustaz gannaaw bu ñu bokkee déglu man ak yow oustaz Mouhamad Sarr eh, benn ni wute naa yow kulliyan eh, léegi yow looy tontu foofu surtout bi mu saxalee waxul sax gis yonent bi ci nelaw mais yonent bi dañu koy gis yax satan kooku du benn ñaareel ba mooy nit bi xaddisaat yi mooy du génn àddina looy tekkal